ndax bokk yi tudd yonent bi tudd yenn baat yi sallallahu alayhi wa sallam réew mi dong lañ ko sañe waaye am na foofu ku ko fa tuddoon tudd lenn danañ ko wër faat ko te da koy jàpp dañuy jàngale ci fiq ne ab yéefar sax su ŋàññee yonent bi wax ci moom lu ñagas du bëgg tëg gëmu ko bu ko neexee mu ne gëmu mu ne gëmu ko moom ndax yàlla ne woon yow yonente bi qulil xaqu min rabbikum fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur afa anta tukrihu nnaasa xata yakunu muminin la ikraha fi diin su waxee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu bëggu tëg moom gëmut ne bi yonente la yam ca na ko dañ ko ray gis nga maa ngi jégalu maa ngi tuub amul ben amul ben sans sum mu ndax seytaane day gemb wayam mu wax lo xam nit ñi dañ cey tambalé xalaat ak ku mëna doon mën ko wax ci ku ne bu paaka ba ngay génn mbaram mu ne jégalu ñu ne ba jéggal leen ko da yaakaar ne foofu lay yem déedéet moom la alxuraan di wax rek na ngeen xam lu ngeen yalla da umpo ko ak adama ak suuf ñett ñu toog moo leen ñeenteel ñeent ñu toog moo leen juróomeel juróom ñu toog moo leen juróom benneel lu lim ba gën bi bari fu ñu limee ba yam fa yàlla ca su ko defee nag ëllëg ngi ñëw te yàggatut bokk yu ñu baree bari ñu gën a siiw di wax yenn wax yi kenn ku ci yaakaar bu ñu lëmb daa doon amul bis bi ñu gën di jege sakratan mawt loo xam ne yow dong yaa koy gis duñ la laaj bu dee ci li ñu laaj ci jamono tarixa ba bokkoon duñ la laaj bu dee ci parti politique yi parti ba bokkoon fooy milité déedéet dootoo ko taal sax tàggoog lii nga gis dong ngay bëgg te mënta nekk soo ma see wax benn baat jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana yàgg dana metti mën na gën a yàgg sa dund te nit ñi dañ ko xam dañ naan ñaata xanaa moom tëdd toon ñu ne gisuba la ko daaneel daal di koy faat gis nga faat boobu yàlla da koy tawi muy metti di tar ba mu ëpp at yi mu def ci kaw suuf loolu yow mën naa xam ci film yi film yi ñaata at lañ koy tourné dana ci gis réew sàngam gis ci réew sàngam mu réew sàngam réew sàngam mënu su ko dox ci benn bis waaye buñ la koy tegal dañ la koy tënkal ci fanweeri minute nga gisoo loolu lépp yàlla leen ko dàq mu leen dàq xas takk jamono mu gàtt moo leen ko dàq tawe kon boog ñun ñi gëm ne alquran wax suñu borom lu mu ci wax danañ ko gis ku gudd fan dana ko gis boo ko xasee ba xam ci alquran ne nangam la soo doxee dund da nga ko gis moo tax yal nañu yàlla saxal ba faw ci gëm yàlla ni ko ab yonentam jàngalee ñun mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léppam la ñuy jël junj naa léegi ne yàlla ko tànn ci nit ñi waaye tasewut ak ku nekk rek tànn ko ca moom da ko waajal yàlla tànn na ci biir bindeefam yi nit ñi ne leen jëfandikoo leen lu na ci kaw suuf te manes koo jëfandikoo moom mu daganal ko moo ne ñoom ñuy jëfandikoo ñëpp dañoo am ay waajur dañuy am ndey ak baay lekk leen xar yeeg ganaar yi ak yi ñuy àndal ak nag yeeg lépp ku ci nekk am nag njaboot xanaa nit moom war naa xam kim séqal ku mu doon teraanga jooju ku la ko defal da ngay dégg fi xam ne dañ koy fal rek loo xam ne benn fan ñaari fan mën nañu koo nangu si moom mu taxaw si mbooloo mi ngi sant diw ndax lii ma moom ma ko jox fàtte na yàlla loolu moo ko koy xam li ma moom ma ko jox déedéet rek te yàlla waajal na ba noppi bu ko jëlee ci sa loxo ku mu koy teg ci loxo tilka al ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam yàlla tànnaat ci biir nit ñi ay anbiya ak i mursaloo tànnaat ci seen biir ñaar fukk ak juróom yoo xam ne ñu ngi ci alquran ñi ne ëpp na ko ñi ne yées na ko benn ñi ne ëpp na ko benn mu tànnaat ci juróom xanaa tànn bu tànn ba ndax moo gën a xam lépp dellu ca tànnaat kenn mu jiite leen ñoom ñëpp te mujj gi ñu fi mujj ñëw bu mu tax ñu defeen dafa tardé maa ngi jégalu ci baat bi déedéet ci waxu arab bii nañ ci bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam alxuraan wàcc ci nee nañ des na jiital koo xam ne mooy moo moo mujj gannaaw ci lim dees na mujjee koo xam ne moo jiitu taaxirul mutaqaddim taqdirul mutaaxir ak تقديم المتاخر اك تاخير المتقدم وينت بصلاة تاخير المتقدم لا مانام موجي موجي نيو مو موت لي ليب كوكو نك من جلد يغم يالا غم ني القران واخ شي بروم جاري سي محمد صلى الله عليه وسلم داني كوي موي مويال نيبم داني كوي موي بام دغر ني مويال نيب كوم ام رك اك كوكو خام cam jaraay mi lu nekk nag wet googu moom la ñu si dimbale kaf mën a du cay jëm ndax loo xam ne bokk yi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñum jaraloon ñu faat leen faat seenu njaboot xañ leen seen alal jépp ci benn bis la taxoon ñu di ko def mooy yàlla taxoon ñu di ko def te yàlla jógu fi ba fi mu ñu amee ñu ko jaral loolu moom li wax lu ubbi ko lépp ak lu waaye neex wax nañ ñu nañ ñu tuñ moom nañ tiñ julliti ki di wax yonent bi di ci teg ay baat loolu moom maytuñ ko kenn kenn kum neex nag mën ngaa dem fa ñuy kalaamee ne diw dafa tëkku nit ñi ay ca nay tay suñuy maam rey nañ leen ci jéem a liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi seenu maam yàgg ci réew mi tuuti ku ne mën ngaa tudd sama maam diw dañ koo rey ci jihaad fi sabilillah te lu lu taxoon mooy li li yàlla yoon li yàlla yónneewu yoon tamit sax kooku nag duñu bàyyi ku jóg def ko sa këllu fowukaay loolu mënut sa nekk moom kay dañ ko bàyyi ci nii wala ca nañ ko bàyyi ngir fàttali ko sukkuraat su metti ak atteeb ëllëg ak kersa ëllëg benn wala boog kenn du ci ko may gan ku ko ku koy waaj nag bayba nga waaj foofu laa ci jàpp tuub tuub naa du leen tax a delluwaat waxaat ko dafa yomb lool wala ruddu la aadu lima nahu anhu wa innahum la kaadibuun fen day jàngoro ñu ne si ñoom dëkk ak ñoom ñu def xool ñu def fan ci seen biir xool ya di ko dund di ko dund boo ko lakkee ko xam amna ñuy wax enjoy sama enjoy moy mom lay dund amna ñu dund fen luñ dugg bu ca fen nekkul génn nañ ci yàlla ñu yàlla boole ci ñi gëm yàlla dëgg te nekk ci l'islam ba ba ñuy faatu dekké ci yàlla ñu yàlla boole dëgg ci ñi nga xam ne dañoo nekk ñooñ muhammad sallallahu alayhi wa sallam يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين